jeunes yi comme ni ko maire Alioune dañ si am ñu xaral si une coalition am si ñu xaral ci sañu directoire Nous tax coalition yi dañuy foog ñom ñu am monopole jeune ñom am nañu benn monopole jeune mais am nañu monopole jeune ñu yaruwul ño xamantene nous amuñu benn yar wax ñaaw ak wax bon la def nous ñun loolu

enregistré sa bopp si wax du ñaaw ñu daal di ne xoola bés baa ngi noonu ñun doxuñu si loolu ñun dañuy dox si loo xamante ne day avancé loo dëkk bi avec les jeunes là bi ñu gisee président de la république dëgg la ñu ñëpp wax nañ ko président ce bilan kenn nattable wu ko baax na lool honorable député Souleymane Ndoye bi mu jëlee parole dafa ne waaye nag ñu tëngee bëgg nañ ko yokk naam yaa ngi def lu bari si département de Rufisque waaye fii ci commune bi bëgg nañu nga yokk financement jigéen ñi fii bëgg nañu xëy ndaw yi nga def si dara fii sañu hôpital bi bëgg nañu nga defar ko et cetera et cetera il a eu le courage de le dire te il a toujours eu le courage de le dire aussi à l' assemblée nationale kon nag bu ñu ko tabee dañ ko war a tab donc fi ñu jëm ñame nañ ko li fi xew duñ fi dellu si waat ñun Benno Bokk Yaakaar dañu defoon ay liste yu bare dañoo xaajaloo woon

combat waru am gagner à 80 en tout cas au niveau de la commune de rufus ouest en tout cas président Binko que ça c'est sas dañu 60 pour faire ñun les bu fekkee li nous je crois que war nañu gagné gagner à 80 la commune de rufus ouest mu am solo nak gagner avec la manière parce que Rufisque-Ouest a yagg xeet parce que nous wax yeen amulen résultat dans le département de Rufisque mon repas ay cadre muy góor muy malheureusement poste de domination est un lay dem cette fois-ci c'est un match cette fois-ci un combat il faut que nous assurer 80 pour réélire notre frère Soleil Ndoye pour une majorité qualifiée au niveau de l'Assemblée nationale